Fatou ñëwal nga toog. mu ñëw ma ne ko tu es ren di du mbalax. ati léegi ñu di ko dooleel. ci li ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko fital. Mhm. ndax ndigal loolu laa jot ci suma ci suma kilifa Makhtar Diop. dëgg la ba pare mu tegal ma ki ne ma. Mhm. jàppal ci bagage yi jëndal. Mhm. ma ne ko ma tardé comme ndaake danoo daje. dew ma këram ñëwul ci suma kër. fi ma fekk baaxul. xéewal yu jënd ay vaisselle du café ak jus newu fii waaye day comme gis naa Mélissa mhm. mooy secrétaire am bi yor kee mhm. mel na ni yëf yi am na nag leb boo jeg koo fay Mélissa mhm. na ma waaw waaw am na kañ am na ñuy leb lebal bu weer dee nga fay Mélissa ma wax lii ma daal di jël benn taasu kafe bu trente cinq mille euh, paquet ak benn bu jus bu vingt cinq mille xaw ma trente mille boo ko boolee daal dafa xaw a yàgg daf na deux ans ci ginnaaw waaye bu baree ba bari xam naa ne bu matee soixante dix mille wala soixante cinq mille ca la ci diggante bi ma fàtte waaye ci fàtte gi terewul maag mbaaco suñu kulëri ngi wéy mi ngi may soxla di ma woo maa ngi koy soxla di ko woo ci fàtte gi bor baa ngi ci suuf génneewaat naa fi man ay koppar yoo xam ne su may koppar bopp la soxla soxlawaat ay vaisselle jënd ko ci moom directement loo xam ne amul leb d'accord bi ci mujj koor ren la mhm. bii weesu mhm. koor gii weesu mhm. chariot fruit bi ma doon teg ci sama saal ci ndog yi ma doon def du leen au dimanche di ci invité suma ay nit chariot bi mbaacoo ma ko jaay ndeysaan libéral bi ko indi mi ngi dund maa ngi numéro ma tey ji may wax ak yow. Mhm. ñaar fukki junni lay jaar cent mille francs CFA. il paraît vaisselle yu rafet lay jaay. la ci wàllu vaisselle. ay vaisselle yu doy waar la mbàccu di jaay. Mhm. bi ko livreur bi indee fi mu taxaw laa rëkkati cent mille francs fay ko. Mhm. fay naa livreur bi loo xam ne moo ëpp bor bi. est-ce que dégg baax bu baax fay naa livreur bi loo xam ne boo ëpp bar bi. mais yow da nga bi. Mhm. nga xam ne moom laa mujjee jël. dëgg la mais dama fàtte. ok dama dem ba bor ba dafa yàgg ma fàtte ko. d'accord bi mu yàggee ma fàtte ko. Mhm. yàlla dogal ma xëy suba rek. Mhm. gis audio yu génn ci internet bi. léegi yow mbaatu di ma fayeeku. léegi yow bi nga déggee loolu automatiquement. waaw nit nga. Uh-huh. lan nga njëkk a yëg. waaw li ma yëg nag mooy xam ne nit matul loolu laa yëg. merew ma mbaaco de. ah ah merew ma ko de su ma ko gisoon léegi dinaa ko kott dinaa ko fóon dinaa waxtaan ak moom ñu ka fooree nan daan def jàpp lu ma ko dara nit a matul mbaake juum ci sama diggante ak moom sekk ngeen lu ëppaat soixante-dix millions waaw sekk nañu mbaax ak kóllëre ak teraanga ndax ci diggante bi man mbaake daje na ak man na ma génn la ci sa poos jox ma ma génnee jox ko ci diggante bi man jóge naa sama kër xiif woo mbaaco ne ko yàpp saaf laa bëgg mu ne ma woo sa yaay Adja Fatou Ndoye mu ñoo lakk ko nga ñëw lekk ko ma woo sama yaay Adja Fatou na ko demal jiitu ma kër Mbacke defaral ma maa ngi ñëw reer si mhm. wala Adja Fatou Ndoye ne ma naa ma ne ko demal jiitu mhm. moom Mbacke mhm. may dem di ko lekk mu ma koy jox ci xol bu sedd guyi kon moom teral na ma ci ñam ma ne teral naa ko ci sama wërsëg kon ànd woowu rafet na ba pare nit da nga am loo koy rusee nit da am loo koy jàppee ki nu boole mi Maxtaar Jóob suba teel man mbaa ci maa def ci àddina luy tax ma koy mere wala ma koy déclarer guerre wala may jëflante ak moom ndax maxtaar mi dox suñu diggante fii mu juumee mooy maa ko leb c'est vrai mhm. waaye sama diggante ak mbaajo mhm. fayeeku ba internet bi di ko jot ak télévision ak rajo yi mhm. mënoon naa ñàkk yow gisoon nga ne yëkkati woon téléphone am woo la ne la fay ma moo gënoon adéquat que mu génne nii ci internet bi oh, oh, woo na ma nag woo na ma de ok ah oui woo ma de d'accord waxtaan wax dëgg ca la woo na ma ay yoon yoon mhm. na ma Omar mhm. ma ne ko naam mu ma yónni ma koppar dama ko soxla mhm. ma ne ko mbaatoo dama ne ci ay xat-xat dama ne ci ay jafe-jafe te booba sax amaana maa ngi koy yor di ko maye wala ma koy def feneen waaye dañ ko sékk xam nga koo sékkal koo ko sékkal nga ko sékkal koo ko sékkatul sékkoo ko moom di kaf di foo di dee parce que comme boobu bopp bor bi yàgg na sori na ma jël yëf yi def ko cinéma mujj bi ma koy fooyee dem na ba ne ma barke Serigne Bamba maa ngi lay laaj sama xaalis ngay caaxaan di foo di kaf di ree di dugg ci lu la neex. Mhm. mais maa ngi lay langal tàkkusaan goo xam ne ci digg réew mi. Mhm. di nga ne kii du mbaajo. Ah, wax na ma ko est ko langue googu ñu waaye xam nga tey. loo mhm. yaakaarul ci nit. xam nga caat tey boo ma nee di nga ma langal. ak lu si kër boo mën a am ci man. ay ree laa koy def te dem tëddi. ndax xam naa ne suma rakk bokk nga xalaatoo loolu mais nag boo demee ba langal ma damay am mbetteel ci yow mhm. loolu la mbir mi demee mooy mhm. mbaaco mhm. woo na ma fayeku ma loolu dëgg la laaj na ma ko dëgg annoncé na ma ni kat naa ko xaar ndax day ñëw waaye dama jàpp ne day foo parce que li ma sikk ak moom jàpp mu woon ne mbaaco dina ma def loolu te environ matul soixante-dix mille su ma juumul matu ko d'accord kii bu café la ak ak kii euh, café la ak jus kaasu café ak kaasu jus d'accord bi coow li génnee ci mm-hmm. internet bi dama woo Milisa bu mu ñëw mm-hmm. ma dajaag moom kër Maxtaar fa ma ko lebee woon mm-hmm. rëkkati koppar yi fay ko kon fay nga bor fay naa bor bi yàgg na bi coow li jollee laa ko fay mi mënoon naa ñàkk léegi nag coow moom mënoon na ñàkk ci suma diggante ak moom ndax deret la mbaa ko rakk la mbaa ko dama ko bëgg comme li nga wax dara lu ko naqari ay xarit ko laal te dara du dara du ñaaw ay xarit ngeen ba noppi mënoon nañu ko sikk ba loolu la wóy te caat doo jot wallaahi waaye lu war a càddi jot kumba jot demba jot paase jot. ismaila jot na gën a raxat na gën a rataxal diggante munoon naa ñàkk wax dëgg <laughs> yàlla ma ko ñaanal nag. Uh-huh. Eh, yoonam leer. Mm-hmm. parce que jigéen ju baax la. Euh, mais nag xam nga Sénégal mm-hmm. ak lii ñu nga xamante ni ci la ñuy yëngu muy audiovisuel. Mm-hmm. surtout nag ci internet bi kenn moomul kenn. dëgg la kenn ku nekk da ngay gis mu commencé nag di ko interpréter d'une autre manière tey jii. Euh, maanaam tu n'as pas l'obligation de dire dëgg la wala du dëgg mais loolu ñu wax est-ce que erreur la wala yow nan nga koy jàppee je sais pas euh, ñu ci bëri nee nañu euh, Mbathio mhm. euh, fondation bi nga xamante ni moom moo jóg hmm. euh, wax ju rafet ji di ci jëpp euh, hmm. amaana ci ñoo xamante ni duñu laale hmm. loolu moo tax mu mer du samay wax waxu internet yi la nee nañ moo tax mu mer ku ci mel ni Faat Mbàkke bi nga xamante ni nee nañ léegi neexoowul ak mbaaco moom moo tax mu mer daal di lay jël euh, laaj xaalis bi yow tey Omaro yow mi la yow mi nga xam miin nga leen ñoom ñaar ñëpp tey bu loolu tamit ban xalaat nga ci am waaw mais noonu la demee ah noonu la demee ah mënumaa toog fii weer sans bopp. Uh-huh. wax dëgg. Uh-huh. ba pare dina bal mbaaco. loolu mënta nekk di. d'accord maa taxaw man weer sans bopp mënumaroo. Uh-huh. ak ni ma yàlla def ci réew mi. may kilifa ki dëkk bi. di boroomu tur ci dëkk bi toll ni ma fi toll investir fi li ma fi investir. ma taxaw weer sama bopp wax la lay am. te muy dëgg. ba pare dina bël mbaaco. d'accord c'est la réalité. kon juboowul. kon laaleewul ak Fatma Mbacké. man ci sama jëm bopp vision boobu laa am. vision bi téléspectateur yi am ak internet yi moom laa am. parce que li waral ma am ko mooy. mi may woo maa ngi koy woo mi ngi may laal xaalisam ñu ngi kaf di foo di ree di ambiance maa ngi jàpp ne day film day cinéma. mais keroog ba ma teralee Fat Mbacké. yónnee ko fukk junni. ak juróom mètre gesner. Suisse Gold Mazé Suisse Gold. ne ne ko sax tabaski. faatu def sinap takk rajo yi wane teranga ji ñu partagé vidéo yi tas ko ci réseaux sociaux yi ca guddi waaw ah, ca guddi ga fanaanul mbir mi fanaanul ca guddi ga ka tàng-tàng ba la mbaatu yëngal kon tey dama ci xamee ni vidéo fan mbàkk bi moo yëngal mbaaco ok ah oui d'accord loolu internet yi buñ ko waxee buñ ko waxul dafa nekk fee yoo xam ne mhm. dafa dafa dafa dafa dafa visible parce que tey soo ma nee eh, eh, Omaro bëgg naa nga ñëw sama kër mhm. topp ma weer di ma ko wax dama laa soxla ñëwal ci kër gi ñëwuma mhm. ma toog ba yàgg dégg na Pape Cheikh Diallo ngi sa kër rek ma ñëw ah boo dee nit doo xam ne Pape Cheikh moo fi dégg moo fi indi moo la fi tax a ñëw dañuy waxante dëgg acca kon ba tey boo dee nit mu mel ne li nga xam ne Baye Cheikh mi ma dégg sa kër moo ma fi indi nii la mbir mi demee kon mu mel ne leer na waaye lu mu ci doon ay sénégalais lañu. Ah. yal na yàlla la rétabliraat lépp. Mm-hmm. mu nekkaat en ordre ci barki Nabil mm-hmm. Moustapha. mais ñu ñëw nag ci li waral loolu yépp Omaro yàlla dafa dogal ne 2011 euh, la tàmbali. Mm-hmm. ñu toll ci 2021 gàtt na gàttul. wax dëgg yàlla amaana bari na ci yu xew yoo xam ne ndaanaan dëgg moo ko mën a dékku waaye terewul yow tamit nga jël sa bët rek jëmale ko ci sénégalais yi. ne damaa bëgg dimbali nag la jeunesse ba tax na euh, korite gi nga def ay xéewal yu bari euh, jox ko ñi nga xamante ni ñooy presse bi euh, màggal gii it ma dégg euh, ci ne yëkkati nga lu toll ci juróom-ñaari bus yóbbul ko ñi nga xam ne ñu fete ci banlieue bi mhm. pour ñu mën a dem màggali Touba nga gën a continuer mission bu mhm. Serigne Touba bi rek te yàlla nga koy gën a mën euh, waaye ñu gis yeneen yoo xamante ne aussi yoo xam du amaana du lu ñuy siiwal yooyu mm-hmm. yuy jugee ci sa jëmm ji di dem ci ñeneen mm-hmm. ah am am ngi macha allah tubarkalla la ñuy mm-hmm. santaatee yàlla wala nit ñu baax ñi nga xamante ne ñoom la la yàlla booleel parce que nag bu ne ngay dégg nag Omaro léegi kan la nekk ci ginnaawam Omaro ku koy financé donc yooyu tamit bëggoon nañu nga indil ci ay ay leeral tuuti jërëjëf Thiat Omaro ki ne ci ginnaawam xolam la ak jomam Mm-hmm. Omaro ki koy financé. Mm-hmm. xolam la ak jomam. dafa am ñaar yoo xam ne yàlla il faut mu fay ma ko man. Mm-hmm. ci sama dund. ñëwaguma ci barkeb sëriñ bi. ñëwaguma ci liggéeyu nday wi. te mu wóor ma. ma xam ci dara xam ne yaay liggéey na. ñëwaguma ci barke baay bi. nga xam ne daf maa gërëm ba tuddee ma doomam. man sama baay. daf maa gërëm bëgg ci man sant ma. ba jur doom tuddee ma. eh loolu neex na. samay taawam. macha allah waxuma loolu. Mm-hmm. loolu ñëwagul. déedéet. waaye damay wax ñaar. Mm-hmm. te caat dama lay wax tey wax ju am solo. nga xam ko. Eh, li cool yi bari bari bari bari bari lu mën a feeñ sama dund ci mbaax. Mm-hmm. sama liggéeyu maam la. man. noosee guma sama liggéeyu ndey ak sama barke baay. li may noosee man. mooy mu néew ak mu bari li mhm. yàlla di feeñal ci man ci xéwal mhm. ba ma jàpp ne kat war naa cee mën a bokk ak sama réew mu bi fondation di ki dimbalee mhm. samay maama ko liggéey muy ñu jur suma ndey ak ñu jur suma baay ku ci mel ni suma maam seeni bu béy nga xam ne fa laa juddoo ca Massi Kassor ak suma maam Faj Daañ Saar nga xam ne mhm. fa lañ ma ngénte ca jëppal mhm. sama ñaari maam yi jigéen yooyu seen liggéey laay noncé ba fi ma toog waaye sama liggéeyu ndey ak sama barke baay mhm. tàbbeegul ci sama jëmm gi dalaguma mi ngi ci suma kanam ndax at yegseegul te bu yegsee réew mi dinañ yëg na jot na waaye daf ci am loo xam ne yàllaa ko nattoo ak jàmm man partage dafa bokk ci sama xol effectivement dafa bokk ci sama dund am ñaar euh, fukki at ak ñaar fukki at ak juróom. Mhm. toll ci jàng di dem di jàngi. Mhm. Mhm. ñi lay jox gute nga yóbbu. dama daan bu fajar gotee may liggéeyi duma ma nangoo jël gute lu ndaw damay gëmloo sama maam ne ko damay xiif. damaa amee ay saan il faut nga jox ma kilo mburu def ci li nga ci war a def lem ko lem ko dugal ko ci saak bi pour bu ma demee du ma ci mos wenn pep lépp dama koy daggat daggate bàyyi ba récréation jot euh, euh, jot ma may ko suma xarit yi séddale ak joxe. Mhm. dafa bokk ci man. bàyyuma ba way di ko def. ma ba feeñ di ma ko def ma ba siiw di ko def. Mhm. bi ma koy def boobu ci jàngi école laa toll ñuy jël gute di ma ko jox muy yóbbu. Mhm. laa daan jël sama gute man di ko jox suma ay ami de classe man toog xaar yàlla. ba wàcc dem añi sama kër. yàlla nag moo def ki sama xol bii lu ma am yéene naa ko doomi aadama yi. ndeysaan. dama la wax barki démb bi ñu wax téléphone na la. waaw. Amar <laughs> de mën naa jeng. Uh-huh. waaye te billaahi wallaahi wa taalaahi mm-hmm. Omar mën na koo topp waaye du yàq ñoonu rek sax lay gën a demee xam nga lu tax noonu lay gën a mm-hmm. demee parce que nag xam nga lépp lu waay mën a am Euh, maanaam te bàyyiwaat ko ci réew mi ngir dimbali ñi nga xamante ni ñoo yeewoo ci réew mi rek mm-hmm. yàlla da ciy def barke parce que nag ak fi réew mi toll mm-hmm. ni ko xale yi di waxee mm-hmm. euh, dëkk bi metti na euh, képp ku ci yëkkatiwaat lu baax rek di ko dellowaat ci biir réew mi day nekk lu solo waaye nag dañ laa tabb loo xamante ni wax dëgg yàlla nag fi ñu toll nii man bëgg naa nag ñu balaa yàgg ñu def la ko muy ministre de la jeunesse <laughs> ah loolu day buñ ko defee mi def nañ ñu ko mun mm-hmm. nu ko deful it mm-hmm. réew mi def nañ ñu ko xam nga jeunesse bi kenn moomu leen jeunesse bee la gën a xam ne Omar li muy joxe moo leen ko gën a soxla mm-hmm. xam na nu ko de fii gars yi dofanu de jeunesse bee la gën a xam ne ñaar téeméer yi Omar di am jël téeméer ba def ci boppam ak ay waajuram ak ay mbokkam jël beneen téeméer bi def ci fondation bi jox jeunesse bi jeunesse bee la gën a xam ne Omar a ko gën a soxla waaye xol ba am a tooñ. Eh, ndax loolu la xol ba am. amaana fa nga mën a jote yow ñoom mënuñu faa jote. waaw ah, très bien. ñaar yooyu day daje. Mhm. benn bi mooy. Mhm. Omar yàlla mën na ko suturaale as tuut boo xam ne. Mhm. bu ko tegee ci daabal bi ne yëkkati naa. am ponkal yu jub. ndax jàmbaar amul kun dimbalee am billaahi te dama ne président Macky Sall mi dénk suñu réew mi sax balaa naan yëkkati naa day doon waxtaan ak ay kilifa am ña mor waxtaanal waaw yaa ngi mm-hmm. waxtaan ak ay conseil am mm-hmm. waxtaan ak tey ñi nga xam ne tey jox na leen bopp mm-hmm. ba ku ci nekk wax ko ci sa xalaat mu jug gouvernement bi jug ku ne am loo indi mais barki dem moo njaay mën mi mais problème mu mën bi état bu Sénégal mën na koo gérer bien sûr lu jar tey homme d'affaires yeeg commerçant yeeg marchand ambulant yeeg animateurs yeeg euh, animatrices yi ku ne jug rek ci li nga yor joxe parce que mbir mooy toll foo xam ne boo nee damay def ña yéen a réew ma jàmm la ngay def ki jeunesse bi nga ko jëmee waruñu laa bàyyi projet bi dañ ciy dugal seen loxo waaye yàlla li may suturaalee mooy. Mm-hmm. du moom ne mukk damay def di ko teg ci nit. caat lu ma ne dama koy def rek. bu dee fukk. Mm-hmm. juróom-ñaaree teg naa ko ci taabal ba. d'accord wéyale mission bi nag di xaar ñett yi ñëw. Mm-hmm. mën naa ñëwaat ci sama doole bopp. waaye mën naa ñëwaat ci doole yi ma nit ñi ma yàlla boole la. yàlla dama dénk ay nit ñu baax. ñoo xam ne bu ma jooyee ñu jooy bu ma bëggee jég. ñu bëgg te fu ma jugee ñu jug. moo bi fondation ci weeru koor gi. yëkkati cinquante basin Suisse Gold bu ci nekk cinq mètres cinq mètres tas ko ci banlieue bi waaye koo jox basin te amul lu ko ñëwee ban njariñ la ko amal mais yëkkati ku ne ci ñoom ci cinquante personnes yi sa cinq basin vidéo yaa ngi fi mi ngi ci internet bi mi ngi TikTok yi mi ngi fépp mm-hmm. ku ci nekk sa cinq basin boole naa ko vingt cinq mille francs enveloppe na la fay ñëw def ko ci koor gi ci kàttanu yàlla ak man manam lu sunu njàmbaar lu sunu doole loolu ñu joxe ci banlieue bi jox xale yi ñoo gën a soxla uh-huh. mais uh-huh. dangaa xam doomu aadama fi muy toll da ngay tele te xam nga ne solo gën a sonal ar ba pare damaa njaboot damaa bari doom xam nga ne maa ëpp doom ci Sénégal may nit ku baax a bari doom barke Seex Saaliw Mbàkke samay moroom yaay dañ may wax papa mu wóor ma ne ñii ñoom ak Zeyna tolloo sama yaay ji ma jur mm. dañ may wax papa bàyyoo ma man ndeysaan waaye ñooñu bu ko recco jotee boo leen mënee dimbali dimbali leen mm-hmm. bi tabaski bi jotee barki dem moo njaay mm-hmm. fondation bi ñëw ak ay xaram mm-hmm. ma rekkati quarante cinq xar macha allah jël trente jël quinze yóbbu prison bu camp pénal may ko ña fa ne tam war leen seen njaboot te mënuñoo génn wuti ko dem hôpital fan mhm. may ko ña fa ne te mu mhm. war leen seen njaboot te mënuñoo génn wuti ko ndax tawat gi seen kaw mhm. vidéo yaa ngi ci YouTube bi ku recherche gis jël yeneen diis yi des toog fa ma toog nit doole di ma fekk ma leen koy jox te yàlla rek a tax jël yeneen cinq yi des xool ci suma entourage ñi ma jege te yàlla séddee ma leen te bu ma ñëwul ci ñoom kenn du ñëw ndax man la am mhm. man la leen yàlla booleel ma séddale leen ko te yàlla rek tax mhm. waaye loolu jàmbaar amul ku dimbalee am dara da cee nekkul tubarkalla dañuy ñaan rek màggal dem moo jaay gën a sax ñu yëkkati juróom-ñaari bus tas ci baal yi may soppi ne leen dem leen léegi a caag problème bi ma am xam nga lan la mooy lan dama ne woon télévision bu ma njëkk jàkkaarloo mhm. jàkkaarloo ak sama nawle mu laaj ma ko dinaa ko ci laajaat mooy lan mooy lan moo tax Omaro mi def fondation yëkkati cinquante basin ak cinquante enveloppe de vingt cinq mille tas ci banlieue bi ba tey nit ñi duñ ci wax un ñaareel bi lu waral Omaro mi yëkkati quarante cinq xar jël quinze yi jox néew doole yi trente yi mu jox hôpitaux yeeg prison yi te ba fii may wax ak yow doo dégg ku ci wax lan moo tax démb rek ci màggal gi. Uh-huh. Omaro jël juróom-ñaari bus ci doole boppam. Uh-huh. tas ci banlieue bi. Uh-huh. dimbale ko néew doole yi ngir ñu dem ci bis Serigne Bamb bi. doo dégg ku ci wax. léegi xam nga lan la ñuy xaar ci Omaro. Omaro sol na Fiso. Omaro sol na Ba. Omaro sol na Kiwisaar. Jumbax Aawut. Omaro sol na Jumbax na léegi ku ne jug. Euh. yor sab làmmiñ mhm. di wax. mais nag xam nga lu tax li baax ci nit ñi. duñ ko wax c'est que man problème boobu laa am ak Sénégal problème boobu laa am. xam nga dinaa la ci tontu te de. caat lii ma lay laaj dama bëgg nga tontu ma ci du Omaro gis ay nit ñoo xam ne li ñuy def ci mbaax ci dëkk bii ak ci mm. wàllu social. Mm-hmm. dafa waroon nit ñi xëy suba di takk rajo yi di ko wax. Mhm. sëñ Fallou Mbacke dafa wax ju am solo. Mhm. dafa ne dee leen gërëm jàmbaar yi ndax yambar yi góorgóorlu. effectivement ndax moo tax bu jàmbaar yi di góorgóorlu duñ ko wax. soo ñuy xaar seen gàcce ak seen xam nga xam nga sax danga leen norme buñ ko tegee rek ci la. <laughs> l'éthique et la déontologie ki invité moom mooy laajte mais dañoo ne Sénégal te fii moom c'est open macha allah Sénégal set Sénégal moo ni bindee mais yow ku ci waxatit ñaax la pour nga gën a def. Mhm. ndongal Sëriñ Tuubaa nga. defuñu sax pour nu wax de. déedéet dañuy def te yàlla tax. xam nañu dañuy def ngir def. lu war xam nga bu yàggee dañuy def it caat ngir xol ba. léegi xam nga loolu la yàlla na xam lu muy jur léegi. mais lu tax sa jëf ju baax duñ ko wax ñoom sa jëf ju ñaaw rek la xam nga léegi bu yàggee sax surtout nga toog nii di ko wax nii di ma ko laaj ñu war ko waxtaanee te xam naa ne ndeysaan fi nga ma teg moo tax nga laaj ma ko nit ñi dañuy jàpp ne di ngay def dangaa bëgg ñu ci wax te xam naa la. Ah. yaa ngi dégg moo tax sax. del ah, noppi moo tax duñ ci wax. waaw wax del parce que euh, nit da ngay am tànki kanam euh, daal di waayoo Serigne Touba. noonu nit la demee ci boo solee fiso da nga ko sol pour bëgg ñu wax <laughs> non damay laajte rek. <laughs> waa léegi kaay noonu la demee ci boo salee baa baa sax léegi nag dafa am baa jëmbax aw dafa am leneen nit loo xamante ni hmm. euh, doomu aadama bi siiw moomatul boppam hmm. lu mu warloo boppam dëgg ak jaam ñi koy seetaan ak ñi koy bëgg ndax hmm. euh, gis nga boo nee dama ne Omaro ba kenn di la déglu rek yow nekkatoo n'importe qui te wax dëgg yàlla déjà actuellement il y a plus de 582 personnes yu ñuy seetaan kon nit ñi bëgg nañ la am na fu ñu la teg donc euh, ñun ñëpp nag ba ci man mi toog ah, dañoo war a di gën a rafetalaat image bi génn toujours ci ñun comprendre nga euh, léegi ñu ñëw nag parce que euh, temps bi tënk nañu te it da am loo xamante ni yàlla dafa dogal ne da nga da nga ko warloo ak sénégalais mais surtout ak kii di di Diop sa doom ñu nekk nag koo xamante ni wax dëgg yàlla foo toog yaa ngi wax dénk gi ñu la ko dénk. Mhm. Euh, di rafetal li nga xamante ni aussi moom mooy seen diggante saa su ne. Mhm. d'ailleurs noonu la la ñëpp xamee. Mhm. mais dafa amoon lu fi xewoon te boobu ba tey man awuma chance toog ak yow. te it boobu ba tey amaan leeral gi nga xamante ne waroon na cee am. certes leer na nii rek. mais dafa desoon. ñu gisaa tamit euh, yàggul dara euh, ñu invité waat ki nga xamante ni moom ñoom ñaar ñoo waraloon coow la. mu mu yëkkati ay kàddu seede woyal la nga fecc mu xam ne fii moo fi nekk. ak internet yi mm. jàppewuñ ko woon noonu te loolu it euh, mérite ñu indi ci ay leeral laataa ñu ndar képp émission bi mm-hmm. muy euh, li nga xamante ni moo xewoon fële ci euh, rue des Almadies mm-hmm. si di tëgg euh, kii di Wally Seck di tëgg ñu ci bëri daan ne dañ faa am lu luñ fa sànni euh, ba mu mujj éclaté ñu ci bëri jiñ ko ñi nga xamante ñoo fare ca Wally donc loolu bi mu amee ñeneen ñoo wëlbati ko di xamlewaat ne euh, complot la ci seen biir pour mën a saboter leneen te ñu nit ñu doon xaar yoo xamante ne bokk na ci ñoom ñu daal ci indi ay kàddu yoo xam ne dina mën a leeral bopp bopp askan wi caat li mën mën a leeral ci loolu mhm. mooy mhm. fii complot amu fi. Mm-hmm. te it ki def ki deful kenn xam ko ko